wéy di gën a ci chaîne chaîne YouTube bii di syndicalisme TV la télévision du moment bi leen di jox mboolem xibaar yu wér wóor ci à temps dal leen ak jàmm ñu xëy taaxañ yéenekaay xëy ndoo tàmbale ko Sud Quotidien bi dikaat ci rupture bi nga xamante ci tàmbali naa dox ubbil yéenekaay nataalu Diomaye Faye ak président Emmanuel Macron bu France naka moom la xëy fës ne sax dëmbu njëkkam bi ne fi naka complexe ba naka dal di diggante Sénégal ak France loolu dal dinaa jeex tàkk nag rupture bañ doon wax nag daanaka ko yéenikaay bi ne commencé naa dox nag li commencé nag am na si jéego woo xamante teg na ko Alioune Dione bi nag jot naa financé lu tolloog 54 organisation yu Bambey nag fintoon la mu xamle nag moo di crédit yooyu bor boobee nag dañ ko war a fay ba dërëm ba ca gën a tuuti nag dañ ko war a fay ndax bor la bor moom fay la sant li nar indi fay gay gu métti yéenekaay moo ngi xëy di ko fësal maanaam menace bi nga xamante si am na ci ci wàññeekum mburu gi mëñëey maanaam ñiy defar fariñ naka fi ne dañuy banque seen loxo téye seen bopp bañ ne jël wax waxu appliquer naka ñu indi yi nga xamante si moo di waxtaan wi état bi dal dee fixé naka son prix fanweeri dërëm naka boulanger yi naka nee nañu noo lànk ñoo bañ tëdd nañ si suuf mëñëey engagé nañu bras de fer ak ñi nga xamante moo di Sonko ndax lañu bëgg ko nangu fintoon naka ñuy jaaye di perte naka loolu lañ dul mën bala ñuy wax waxu wàññe nañ waxtaane ba noppi naka li nga xamante ni ci moom la ñuy liggéey ndax itam ñoom la ñuy jënd nag wàññiwu leen ko kon mënu ñoo wàññi su ko defee naka bu ñu waxee wàññi coow rek lañ fi a indi waaye wàññi boobee naka du mën a ne coow laa ngay tàmbali nag bu ñu sukkandikoo ci Moussa Mbaye opérateur économique la biir bi turbine lañ ci na gouvernement bi la mu def rek moo di yokk 1250 francs ci njëgu diwlin bi kon naka la googee naka mën a guta ne ndax waxtaan wa war nag dëggantaan amagut ci leefo yéenekaay naka mëñee nag defee nañu état état bu Sénégal nag ak meunier boo moytu nag daanu jaaroo taal de ndax fintoon yi lañu bëgg nag nangoo guñu ko ndax jàpp nañ ne la état ba kay moo am fintoon yi ci njëgu mburu gi ndax meunier nag nee nañu fintoon yi la état bi bëgg mënuta ne le mal est dans la boobu bi nag moo nar a indi coow li ndax ñi koy defar fintoon yi jàpp nañ ne li état bi bëgg mënta ne nekk te ñoom takk dañuy jéeg liggéey te bëgguñu liggéey di liggéey di perte Le Soleil yéeni dina tàmbali ci weeru juillet bi ñu daldee jëm première cargaison commerciale bi naka war a tukkee naka ci Sangomar googee ñu ngi koy xaarane ci début weeru juillet bi nga xamante ci lañ jëm ubbil yéeni kaay ab production boo xamante ni dina toll ci 11,7 millions de barils ci at mu ne naka si brut ci atum 2024 volume ba naka boo si lépp lu ci am ci gestion bu baax rek Sénégal dina ci gis boppam bu baax a baax révélation yéeni lu waay doon jaay léegi mu lamb njëg yi nga xamante nee wàññi nga xamante ne moom la ci gars war a teg tànk de ndax am na ñoo xamante ñu ngi làqatu li wax waxu yëg wàññ moom xalaatuñ ko ba ko def moo tax nag ñu ne nag faaw ñu am contrôle boo xamante ne dana mucc ayib lool le quotidien yéeni kaay dikaat ci passage bi nga xamante ne cabinet sans hypothèse yi nga xamante si moo di set saaj yi aji mbergaan kanute la mu xamle moo di nag Ousmane Sonko falaa budda dinañu assemblée nationale ndax jaar la boo xamante si c'est obligé far force la fa far jaar loolu tax nag yéene kaay xëy enquête nag bu dal ci journaliste ak politique au Sénégal am na si ñu bëri ñoo xamante si fësal na seen nataal yaa xam mbay Pape Djibril Fall Racine Talla Pape Alé Niang Ahmed Aïdara ak Bougane Gueye Dany yéene cabinet transition politique naka ab tendance boo xamante gis nañ ko ci taskatu xibaar yi Racine Tall nag wàllum militantisme naka daanaka moom la gënoon a def naka ci wàllum service public bi yaa xam mbay la double casquette noonu la ko yéene bi xëy fësalil Ahmed Aïdara moom la ko dugal ci wàllum politique boo xamante da ko assumé Souleymane Jules Diop Yoro Dia Sadiq Top Mamadou Bamba Ndiaye ñoom ñëpp naka seenub xalima la jaaree nag nag la ñu indaale ci Sénégal nag neexul covid 19 am na ci bëri ñoo xamante ci bëri yoo xamante ni ay kaaw covid 19 la amaat na ci Sénégal te ñu ko jëlee naka ci aju ko ci réew mi ci wàllum inondation ndax tamit am na taw yu bëri yoo xamante ni si nee nañ dina ay indice yu doy waar yoo xamante ni gis nañ ko ñëpp tiit nag l'état des lieux ndax lu ëpp milliards de francs CFA yoo xamante ñàkk nañ ko ak mobilisation armée bi yéene moytu nag ren jii dina fi gën a métti ndax si ñuy dal dee joxe dara neexagul ci de mbir maa ngoog ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg